ndey nday gay fi nga sax man maaloo fi laa sax say tànk lay topp tey say tànk lay topp ëllëg nday loo wax laay def loo ma tere laay bàyyi ndax mag jar naa bàyyi ci réew bu doon ñaar at sa wala ñetti at wala ñeent sa yaa ma ko màggee nga doon nit ku baax nga doon nit ku gën taalibe sëriñ Tuubaa bi yaa bëgg sa jëkkër yaa baax yaa gën yaa riis yaa nawloo sa bopp ñi am yàlla na leen yàlla teral mu gën a yokk ñi am seen oto dawal leen yàlla na leen yàlla mooy toog seytaane tali bi ñi ko amul yàlla na leen suñu borom dimbali bu dee bu dee oto moo gën ci ñoom yàlla na leen ko bu dee oto bi gënu si ñoom yàlla buñ ko am man de maa ngi ñaan yàlla lépp lu gën ci man yàlla naa ko am bu gënu ci man nar maa defal ay yére ñu bokkute wala mu fànqama leen yàlla bu mu ñëw ci at e eh, maa yënga bi ma demee ba xam ne tubaarka ñu ñëpp dañuy dee damaa far noppalu ndey gay nag bàyyi leen yéen journaliste yi defaatal leen seen toogaay ngeen xool seeni question ngeen xool ni ngeen def question yi bëgg bës bu la taxee toog mbaa yi ngeen a bës yàllaa gën bës nit yàlla bësam doo wàcc mukk ba illaa yawmi diin man bi ma juddoo ba tey maa ngi ci làmmiñu nit ñi ci keloo ba rek laay dégg ci keloo ba amul kenn ku taxoon ne maa la fal amul kenn ku taxoon ne nii nga mel maa la ko def jigéen ca sa daaru salam rek ma ma ñaanal ma ànd ak fit ba ku góor ko tubaarkalla ànd ak ma koy aimé mu takk ma bu gudd jotee ma sam ko ba mu set kuus ko balaa moo saw lal bi mu leen ma kii sama mari la maa ko aimé lu ci problème mu nit dëkkuwaayu nit lu seen problème da ngeen a bëgg dëkkuwaay bi ngeen wax ne kaay lañ dem suñu kër sama kër famille li ngeen gëj gis ngeen fay fekk cinq suñu kër famille côté bi lan tabax bu baax côté bi ñu tabax bu baax parce que amuñu doole boobu lu ñu am ñu ngi koy def bëgg a boole añ ak reer ak ndékk ak yeneen ak yeneen li ñu am ñu ngi koy def suñu kër famille su ma amee léegi sa ak suma damay doon yóbbu fa ñu tabax ba tey pareegut côté bi seng bu ngeen duggee suñu kër ngeen di gis seng côté bi seng la fa mbaaree ne seng waaye ma ni toggee bu nawetee sama jéegi bu nawetee sant nañ yàlla danaan sa tati di sotteeku ren leen sant yàlla ren leen am waañ bu baax sama kër famille man ku fa demoon léegi loolu nga fay fekk laa juddoo fa laa yor fa laa màggee te lu ma mënta metti même bu ma tëddee sama kër gi ma feebar sax fa laay jóg dem kër gi ma dëkk moom mu ko dama koo luyee bu weddee boo fay dañ lay génnee si biti agence ko yow du sama am-am mënuma ko am naa kër kër gaa nga ba fee nutu du mën a gumakaa taba nutati jam ñaa maa ngi cay def lu ma mën te bu gënee tàkk ma yóbbu fa samay famille juddoo ma ci tubaab màgg suuf ma màgg ma tubaab sama yaay bi may am doom jaay lan lay lan la ñuy jaay la ma ko du ngeen wax si balaa ngaa wax vie lan mooy vie lan mooy kër lan mooy étage lan mooy chambre eh mën a dëkk ci kër gu baax mën a defal yàlla ba ëllëgee mu teral la fële ci àllaaxira fii si àddina mën a lijjanti la ko lijjantee bari na ñoo xam ne li ñuy def li ñuy def bu ko déggee defoon léegi day am waaye da koy jomm ndax yàlla da koy boole borom kër te jomm naa def dara du ngeen yërëm ndey ngir yàlla ak yonent bi du ngeen yërëm ndey ngir yàlla ak yonent bi koo nawlawu nawlawu la Ndeye Gueye ku ko nawloo faale wala lijjanti wala toppatoo wala xamul sax na yaa ngi dund Ndeye Gueye mu ne papa Ndeye Gueye loo mu ne papa papa la bëgg papa la fonk papa la nawloo du ngeen ko jàppale ci seen bii bu ngeen ko mënu ngeen bàyyi ko ndax ñaan kilo ceeb moo ne li mu gàtt gàtt mi ngi def loo xamante ni de ñi ngeen koy dëndaleen ñooñu defuñu dara ndax mu ngi def sax ngoon mu togg woo waa koñ ba ñu lekk taa am na ay biir yu xiifoon mu ne leen kaay leen ñooñu lekk ñaanal ko ñaan nga am ca yàlla e àddina du dara tudd kër lu fi waay jënd day jeex mètre percal juróom-ñaar moo lay topp bay dem àllaaxira te léegi sa percal wàññeeku ne mètre cent vingt cinq la te ñun ñëpp nag eh borom scooter bi ak borom oto bi ki takk or ki takk përëm ki am kër ak kilo ñëpp bu ñu deewee benn wet li ñuy tëddee mosoo gis ko am oto mu dee ñee nañ ko jaaxaan ne ndax daa yor ñëpp dañuy leru seen loxo am nga bay bay bay baagu baagul ci ñàkk na toog xaar yàlla te xam ne yàlla rek mooy maye yàlla kasa mooy may keneen mayewul fi ku ñàkk fii dégg naa bu ëllëgee yow ma xiyaam yaay doon milliardaire te eh, man xamal lu ma gënal bëgguma alal bu ma naree am alal fii ci àddina dem àllaaxira barki Seydina Muhammad doon fa raxas ko to oto ya wala ñu lay ciipatu wala nga jàkkaarloo yàlla sëngem yàlla bu ma ko am bu ma naree am alal te dimbali ma doomu aadama yi li ne du ko daayoo di toog di di écarté di wax yàlla bu ma ko am su ma nammee am mu leeral man naa am yàlla xañee leen doomu aadama yi wala mu leeral dinaa am gis waaye ñu ni yaay yokk sa yaay joote papa sa papa tëdd xiif ba lemu ba mel ni mburu faga daga <laughs> waay gaañu lan mooy problème bàyyi leen day kay bàyyi leen day kay barke Allaaji Fallu Mbakke bu jëmm xiyaamee taxawaay bi dana yàgg te ñun jaamee ñoo fa yàgg suñu bopp yàlla du baal ku sam nawle baalut mosoo dégg baalu may la baalu nga dem ne yàlla baal ma yàlla baal la te fekk baaluwul sa nawle ba pare yow mi xas sa jagoo balaa ngaa xas sa da ngay jag balaa ngaa xas sa dangay ngay jag nday gay mi nga toog di ko partagé yow jagoo ji yow jagoo ba pare taxaw insé jagoo nday gay lu ca war def ko ca sénégalais xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam lu ca war def ko ca nday gay sénégalais dañ laa yab il faut nga def ci koo xamante ne lu métti ba moromam dégg ko ñu bàyyi la parce que nday gay defoo ci réew mi duñ lay xeebee woote woo fi pribam woote woo fi ooyoo ubbi woo fi saal ne kaay may jaay xale jigéen ñi defoo fi loolu yëpp bu la neexoon xoolal da ngay génn gunaas apartement yi fépp la am ci ku mu neex fa nga cosaanoo nga ne fa ca bu la neexee génn gunaas dem jëli sa yàlla teral na la loo ko fay yaa ngi jaay maam boo jaawaa ngi sa ginnaaw te am na ko mën na ko waali sekk sa ginnaaw siiri joolaa ngi sa ginnaaw tubaarkaa ak yeneen ak yeneen nañuy war maam magu artiste man ba keroog may téeméer at xale bu ma wax loo ma war dinaa la noq ba nga bëgg a man bañ naa ko ba sa woo ma ma dem woot naa ko dem yom lijjanti ko man damaa am xattu commandant am ay policier am ay ñëpp parce que ëllëg a tax ëllëg moo tax lan mooy problème bi arrêté leen nday joy seen moroom man ku ma wax man gis nga maire bu fi lapp-lappi nee naa la nee naa la âge day yokk kilifa man tey boo duggee suñu kër ba gis man ñi nga xamante ñoom ñoo ma mag da ngeen naan kon nan la toll nii. gis nga samay mag yi fi ñëw samay mag yi fi ñëw ku ci nekk nii nga toll. day ngóone parce que ngu parce que ngóone doomaraam la doomaraam boo xam ne lii yàgg na koo def njëkkewu ko ci ndey géej waaw Lamoro dama ko def Ngoné dama ba pare su jugee ba pare ma ba pare Ngoné su jugee di mbubboo naan patriote laak ay Ousmane Sonko laa àndal nañ bàyyi suñ defee yu bon yi di ko jiiñ ay ay patriote Ngoné la. waaw la. waaw la. waaw ngóone la bu fi nekk di man wax bi du ma ko nëbb te ngóone nag à tout moment mën naa daanu ci kawam téegal ndeyam ba muy xëy ci gëdëg sa braata à tout moment mën naa téegal ndeyam doomaraam la na bàyyi jàmbur. waaw déggee defu leen waxu ndéggee ngi ci yoonam farantuwu deful dara sa jëkkër ju bon ji moo gën sa far bu baax bi ndéggee ngi ci yoon lislaam di sëy sëyam toog di muñal jëkkëram nañ ko bàyyi demut ci ñoom toogut ci ñoom dugut ci ñoom woowu leen ñaan leen xamuñu soxlaam ndéggee ku diñ la ko am maanaam man ndéggee damay dajeeg moom ndéggee soo soo dajeeg moom du la ne sax may ma yow yaay xool ne ndéggee mi kat sa nit la nga yëkkati may ko nañ bàyyi tooñ nañ bàyyi tooñ waaw tooñ baaxul allez incomprendre. nañ bàyyi tooñ ñu nekk di làkk-làkkal na du benn journal journaliste yi defuñ dara nañ wax ngóone borom kanam gu daanu gi gémmiñ gu daanu gi la nañ wax ngóone doomaraam la moo toj dëkk bi su ba wun déggee à tout moment dinaa recruter xale ñu tégal ndeyam ba pare naan ko ba pare naan ko defal ni sa nawle jox ko benn crème de visage ba pare naan ko defal ni sa bi am na crème de visage defal sa léegi dama la bëgg a laaj ma ma uyu ma euh, ticket lan la fi nawle ndéygéey ndéygéey def lu fi ndéygéey defut wala moom sama tane nawle mi parce que moom moo ngi sëy moom de teel a ngi sëy moom ci la ñoom maam baasin caam la tool euh, la nekk ak ak ak ñoom jole naan ko naan léegi lan fi lan fi ndéy waa léegi moom lan la fi déggee def loo xam ne lu lu lu fi nawlem defoot. ba ba naa ko mel ni sa nawle moo